doo ma ne sa gars yi xamuñu woon ni bi ñuy romb frontière bi dugg ñu woon ci beneen zone. ñu woon ci Maki bi xam nañ ko préparé wu en conséquence. si loolu waaye ñuy dem préparé wu nañ. mais au retour day am délaissement parce que dañuy jàpp nii lépp leer na ci ginnaaw parce que jaar bi ñu ñëw. ah bi te bi ñuy retour nag la loola. la gars yi embusqué dóor seen kaw xam nga les les rebelles dañoo am benn point fort dañuy am benn section boo la ñuy yor. RPG mooy ay roquettes yooyu ah. kooku bu lu ci dóoree 10 ak nu ngeen mën a toll vraiment désespère day am moo indi jafe-jafe bi tey. parce que roquette dafa kéemtaan la. dafa kéemtaan ne fu ñu ko dóor ku dul góor siggi jamais te ñoom loolu mooy seen kii léegi sax boo gisee am na ay M16. oui man moo ma jaaxal. mais mais wax loolu laa bëggoon wax jumtukaay yooyu rebelle am yor fu mu jógee. waa xam nga la Casamance euh, portugais yi ñoo ko moomoon. mais bi demee ba. xam ne désobé désobéissance bi am diggante Aline Sitoé ak ñoo Aline Sitoé musul xex mhm. mais supposons bu portugais yi waxoon nañu fay impôt day taxone bu kenn fay impôt mo noonu doon xexé ba jaroon sax ñu déporter ko. ci kaw lolu France xam il faut mu jëma négocier ak Portugal jox leen ben île ñom ñu jël Casamance Casamance ancienne mu ngi bok ci Guinée Bissau premier découpage administratif bi ñu def Casamance c'était en 1962. Tambacounda faisait partie de la Casamance ñu découpé ko en 1962. oui bi ko découpé mu la Casamance ñu ñëw en 1984 ñu découpé waat ko encore Zigan Ziguinchor génne Kolda ñëw ba de en 2008 ñu découpé encore Géné Kolda Géné Sédhiou ci loolu nag gars yi dañu fi am ay ku ci secteur en 2007 bi abbé génne Aduna. Mhm. ku ci ne ci bastion Salif Sadio mooy Le Blouf moo jël Le Blouf bi ñoo na jëm frontière Gambie Ousmane euh, Mamadou Niantang Diatta moo jël tout ce qui est Samine ba Kolda ba côté Ziguinchor euh, César Atoute Badiate moo jël dans le Fogni xam te Blouf bi dafa nekk frontière Guinée ak Gambie te Guinée Bissau dafa frontalier ak Sierra woon ak Libéria toutes les armes yi nga xamante ne nii mu ngi dugg ci secteur Gambie secteur euh, secteur Casamance mu ngi jugee Sierra woon mu ngi Libéria. lan la ñoom dañ koy jëndi wala dañ leen koy jox. mais c'est un trafic la France mooy suñu problème. ah oui ah oui bi mu ñëwee jël Casamance ñu boole ko ci Sénégal ci lay jàpp wax commencé wax Casamance yi naa leen yéen bu ne set n'êtes pas des Sénégalais. xool France moo dugal loolu si bopp. c'est la vérité xool leen seen environnement bi ni mu mel yéen climat Guinée-Bissau ngeen yor France tous les pays de l'Afrique yi am instant bi conflit France moo fa implanté conflit bi. France move implanté ko si ko